ñu ngi nuyu mbooloo mi fi toog yëpp ci njiitalu président Modou Seck ak ñi ma àndal liggéey bi Xaadim Diop la président marché Ocass ñu ngi sant yàlla bu baax ci initiative bi ndax euh, lii formation la boo xamante ne si ne yàlla dafa dogal muy lu ñu bëggoon mu yàgg trop ñu koy dox na yàlla tey la ko antul ñuy nuyu euh, ñi jiite formation bi ku mel ne président Abdou Wade ak euh, Ndiasse ak ñi ma àndal ci liggéey bi ñëpp. waaw ah, nuyoo bi dañ ciy jiital président Modou Seck rek mu yóbbaale ñëpp ndax regroupement bi moom waaw ah, ñëpp benn lañ soo nuyoo président Modou sekk rek nuyu nga ñëpp di nuyu ñu fi toog ñëpp nag bàyyi wuñ kenn di nuyu tamit waa marché Ocass bi nga xamante ne si ñoo nekk sama ginnaaw te yàlla dogal ma jiite leen formation bi nag dañ koo dañ ko bëgg a démarrer tey ah, mu nekk loo xamante ne si ne bëgg nañ ñu jëlee fi xam-xam bu baax a baax ndax jamono moo toll foo xamante ne si ne képp kuy téer wul yaakaar naa ne dina xaw a doy ndax métier mi léegi dafa xaw a dafa xaw a avancé bu baax soo képp ku ci nekk muy ndaw muy mag nga fexee formaliser wu ndax euh, ci ngay mën a jariñoo ndax métier mi ci kanam tuuti ku formaliser wul jàpp naa ne du ma ne doo liggéey de mais sa liggéey dina xaw a sooxee te yàlla dogal na dimbali nañu waaw ci suñu biir groupement bi am ñoo xamante ne si ne mën na formé loolu yombul waaw nit ñi dañ daan génn di dem wuti ay formateur yàlla dogal na mu suñu biir ñu ñuy formé kon loolu dañ koy sante yàlla waaw comme demee na noonu nag ñu am ko suñ biir ne ñëpp góorgóorlu ci loolu te fas yéene ñëw formalisé wu comme am na ci regroupement bi képp kuy téer te nekk ci cees fu munti doon marché fu munta ne doon wala nga nekk ci roxur xaadi da nga fexee bootu ci ginnaaw regroupement bi nga ñëw formalisé wu ndax lii lu jafe la ndax ah, sëñ bi daan wax naan wuti wuti xam-xam jar na daw ba siin yàlla dogal nag mu indil leen ko seen biir mu nekk seen biir kon kooku yombal na leen ko ne ñëpp ñëw formalisé wu lii nag ubbi la rek dañuy démarrer Ah, kilifa yi nañ gën a yaatal incha allah. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu nuyoo waat rek am ay kàddu yu ndaw yuñ ci sànni ñu ngi wax au nom du regroupement des tailleurs de la région de Thiès par la voix di président moom Mamadou Seck comme ni nga ko waxee woon tout à l'heure bi ñu jógee marché Grand Thiès si seen consultation. col de l'utérus bi ñu doon def foofu à travers les femmes di marché foofu wax nañ fa ni actuellement dañu nekk ci phase phase des d'exécution bi nga xam ni ci lan nekk lu ñoo xam ni élaboré woon nañ ko wax nii la ñuy doxale ñu toll ci di ko doxal doxal bi nag dafa am nu mu tëddee nu mu tëddee mooy marché bu ci nekk da ngay xool li nga xam ni mooy yitteel sa waa nga ñëw demander loolu bureau exécutif bi ñu nekk ci jéem ko doxal mais gis naa ni waa marché Ocass aussi vraiment def nan bon choix parce que ku xool avec euh, la modernisation de l'État tey jii lu ñu wax ci tenue élèves yi au niveau national nga xam ni tey jii état jël na engagement ni au niveau national bépp élève boo xam ni que ça soit privé ou public da nga war a sol uniforme te loolu kenn waru ko ñaw lu dul tailleur Sénégal yi kon ñun yàlla dimbali ñu ba nga xam ne regroupement de regroupement des tailleurs de la région de Thiès fekk na leen ci parce que amul dara lu ñu jéggaani boo xoolee ci côté formateur tey jii formateur yi fi nekk je au niveau national formateur yi fi nekk yu gën a mag ñu ngi ci regroupement des tailleurs de Thiès. je peux même dire au niveau international parce que c'est des formateurs yi nga xam ni ay internationaux ñoo fi ñëw former leen je cite le président Ndiasse Kaye ah président de la commission formation et le directeur monsieur Abdou Khadir Wade tey jii au niveau national ñëpp xam nañ leen mais yàlla dogal na si regroupement des tailleurs de la région de Thiès foofu lan nekk ñu leen di saluer de passage di wax aussi participants yi di leen ñaanal yàlla lii ñu commencé ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim tëj ko ci alhamdulilah rabbi alamin voilà merci.